comme Tapha Tine Boy Niang grand contre petit la Papa moom may cité sens di ko di ko si félicité parce que munoon na ko bañ ki nga xamante Tapha actuellement dans l'arène Papa Sow lu mu bëree si nombre de combat kenn amu ko si si nombre de combat il a presque quarante et poussière de de combat yi nga xamante ne disputé nag tey jii nii Tapha Papa li muy lijjanti ci làmb ce n'est pas pour devenir roi des arènes ce n'est pas pour dajewaat ak ñoom Balla Gaye 2 c'est pour que mu am ay mu am de l'argent euh, préparer sa fin de carrière foofu la toll donc à Siteu moom moo war woon ni man xale la da nga ma may sens sens boobu dama ko war a saisir Siteu lan mooy problème mën na bëre parce que mbapat moo tax euh, mu am public yi mu am tey mais Siteu amul caay caay bëre Siteu dafay ñëw bëre sans caay-caay ba Siteu bu amoon capacité de caay-caay li Modou Lo am lamb ji vraiment kenn du ko daan parce que am na fit am na fit am na public te am na taxawaay mbër donc ci biir caay-caay yu bëri moo ko manqué maanaam bu fekkente bëre il faut ngay dóor ti du dóor day jàpp bëgg a bëre ak yow comme làmb ji du mbapat loolu moo sonal tiita parce que bu fekkente ne adversaire dañuy xam ni bu ñu jàppante yow doo dóor doo jël ay coup de genou doo dóor coup de loxo duñ la ragal mais bu xamee ni comme Modou Lo lan moo tax gars yi ñemewuñu song Modou Lo ci jàppante. parce que xam na ni Modou Lo non seulement day bëri mais lu muy lu muy noonu la lay dóoree noonu la lay defee ay action loolu dañ lay bàyyi xel ci loolu mais surtout bu ñuy bu ñuy bëree ak yow ak yow dañuy xam ni. Siteu mi pour mu pour mu dóor la ay uppercut ay yooyu noonu bëriwul donc il faut que mu am caay-caay yu bëree il faut que mu am li nga xamante ni moom mooy buy jàppante ak yow loxo bi dee dem euh, euh, ja bëree bëree bi di feeñ. donc loolu côté boobu vraiment naa ko si conseillé parce que Papa ba léegi xale la mais dafa am doole. grand mag la dafa am doole du mag noonu parce que environ 40 ans la am mais dafa am doole Papa Sow dafa mun a Papa plusieurs fois nekk na top 5 si ay victoire nga xamante ne maa ngi seetaan victoire am contre euh, Santang Ning Santang Ning daf ko jékku woon bi arène bi yëpp stadium bii la woon ba ñëpp xamoon ni comme jàppoon ni combat bi tafa Papa Sow koy daan mu génn ci avec une chute vraiment spectaculaire dafa mën a bëre dañ ko formé écurie Fass nga xamante ne c'est les professeur de la lutte ñoo ko yoroon mu dem tey Euh, euh, mu am plus de moyens tey pour am taxawaay bi bi ko war pour que mën mun a préparer combat bi donc mun naa wax ni Siteu am na sérieux problème contre Papa bu deful ndànk Papa génn ci combat bi. ba nga jàmm. waaw sant yàlla ba alhamdulilah. avant tout état de forme Siteu est-ce que tamit dal na xel. waaw ñun xam nañ ko bu baax. waaw loolu moom métul métul si ñun. waaw gérer lépp waaj nañ daal lépp lu ñu waroon waaj waaw. est-ce que xam ngeen ki ngeen di bëreel réellement. non duggoon na fi. waaw kon xam nañ waaw dugg na fi moog nees. waaw na fi kon xam nañ ko. Eh, mais daa dóor nees nees kawoote nees jofru ci kaw. lan la dóoroon nees. bras loolu bu ñu ko toppoon day day daanu avant bras la la dóor nees te loolu bokk ci làmb bu ñu ko toppoon rek day daanu waaye dañoo xam ne daan nañ kom loolu noonu ñu loolu ñu bàyyi mu dem. mais est ce que am na lu ngeen moytu ci non amuñ leen luñ ciy moytu ñu ñoo ko gën a féete xale ñu ñoo ko bu doole ñoo ko daax xeex ñoo ko daax bëri waaw. amul lenn lu ñu métti si moom. mais bu ngeen ko defee ci bopp Siteu jour ji du ngeen am sur. Siteu na nag du xale de. booy seet communication bu njëkk ba première signature ba ak léegi nii ndax bokk na kon màgg na wax dëgg yàlla. dëgg ñu ñëw ci yow yow moom feebar yëpp dañ fee nekk. yow dégg naa da ngaa tànn Siteu yow te loo yokk yaakaar naa day gën a neex see diggante ak Alioune Sèye Junior war nañ ci mën a xaar lan. waaw non comme comme ban Siteu ngay wax. Alioune Sèye Junior. ban City ngay wax City ban ngay wax léegi Alioune Sèye la. waaw looy yokk day gën a neex. <laughs> ah non yàlla ah, yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm yooyu du mu ci débat. mais gis nañ signature ba. seen jàkkaarloo maa ngi fa woon ñu gis ne daf la ñeme de trop loolu noonu lan la. waa xam nga Tijaan moom ku jàkkaarloog moom mosul yére da nga koy ñeme waaye bu wàllu ba ñu dox si diggante génn suñu diggante. waaw xam na yaakaar naa ne buñ ko ne jaarul fii su fekkoon du ma jaar loolu laa yaakaar daal. moom kay la may li ma koy ñaan moom mooy na ko yàlla defal jàmm defal ma jàmm rek bu bés ba incha allah rabi mu bañ a déglu kenn nag ni mu doon bëree. moom bu na bañ a déglu kenn na bañ ñëw ñu naan ko defal lii rek defal lii na ñëw rek li mu wax na ñëw def ko. naa ko mais nee na moom bu arbitre sifflé lépp lu fay am moom moo koy def nee na da ngay ñëw rek pour daanu. waaw loolu loolu moom du ma ci xam nga loolu moom wa loolu moom loolu wàllu yàlla la ñun luñ mën moom mooy ñaan rek ba bis ba yàlla may ñu dal ak fekkee incha allah te may ñu jour ba ñu nekk incha allah dina xam ndax moom mooy def ndax may def. est que tamit pare nga pour xeex ak moom mi ngi insister ci xeex. non déggu li ma la wax man loolu du ma ci débat. waaw mais nag Tidiane nag loolu noonu. Aliou kan la xeexal kan la dóor. kan parce que nee na moom sa combat moom da cee bëgg wane boppam ba nit ñëpp xam ne champion. mën na nekk de am na ñu ko waxoon fii waaye woy nañ seen bopp. ndax jàpp naa fi mbër ba ma ko yóbboo Tapsane ba léegi dañ ñu koy ñu koy ñaaj kon kooku wane na boppam xëy na mun naa wane boppam tamit waaw loolu mun na nekk tamit mun na wane boppam ah. man xamal la laat na mu ceew man Tidiane mu ñëw géewali tëggal ko mu njuug man loolu bëgg naa ko ci sër daal xam naa ne sër nañ ko takk si wet gi toog ba ci suuf te xam naa ne jour bi ku may àndal si làmb ja su mënul njuug bu yeboo nga toog. njuug mu sax dàkk laa. dàkk nag laa la wax loolu moom man maa la ko ñaan te cosaan nga la ñu dellu nag cosaan nga. waxuma njuugu léegi de cosaan nga. <laughs> njuugu Tidiane Faye dafa raara. <laughs> ñu ngi waajal daal incha bi di ñaanal ñëpp jàmm rek di ñaanal yàlla may ñu tam incha allah. waaw xam nga tey Siteu li muy indi mooy wax ne leen ko si biir yi wax moom li muy indi du ko wax quoi comprendre nga mais ñun xam nañ ne pare na si si lépp ñun xam nañ ne pare na si lépp quoi bu ñu waxante dëgg rek pare na si lépp parce que tey combat boo xam ne da nga ko jël ay am at at ak lu teg yow boo parewul war nañ la laaj yow yaay kan wala wala yeb nga say fans quoi. Mm-hmm. te Siteu xam ngeen ne réew moo topp si gannaawam. Mm. comme bu jógee ñëpp a jox. Mm. comprendre nga kon kooku caaxaan waru ko te moom xam ne ne mu ngi si. dëgg tamit mais Papa Sow mag la du mag moo xam ne nag da ngay ñëw rek fële nga jàll. comprendre nga mag la mais Siteu tamit. wax nag dëgg da comprendre nga mais Siteu na xam ne combat bi lu mu ko jaral parce que Siteu dafa perdre contre guy yi. Mm-hmm. te dafa war a ñëw confirmer te incha allahu day ñëw confirmer. mais xam ngeen ki ngeen dajal. bu baax amul tax ma koy wax. mooy ndaama la. Mhm. am na expérience. Mhm. day xeex day song. Mhm. te man mbër bu dee ndaama te munoo song xamatuma ci mbir dara. waaw te mi Papa Sow ci dàq loolu kenn waxatu ko gis nga Papa bi muy bëree moom bi muy bëre boobu ñun ñu ngi kuusu. Papa Sow bi muy bëre boobu ñun ñu ñuy kuus. loo bëgg a wax kon waaw loolu dafa leer garab si kaw lay fekkante Papa Sow bi muy bëre boobu si la déggoo li ma la mu ngi jàng dox di jóg di daanu kon bu demee ba tasee moom. Papa Sow bu tiit di am moom moo war a tiit parce que xale bi nga jàpp di ko boot saa yoo ko bootee mu wàccee di doxal boppam war nga bàyyi xel ci kooku. waaw sam papa daana wax ni boo jubee nit muy daw. di ci àgg jóg ko mu taxaw na nga ko bàyyi. waaw dëgg la xale boo xam ne da ko dóor mu jàpp sa loxo nga dañ dañ mënoo dañ mu bàyyi la bu fekkee nit dëgg nga non boobu xale doo ko laalaat comprendre nga kon na Papa Sow xam ne ne booy bi ndaw la te day ñëw jël sa li mu moom dem incha allahu rabi. kooku mooy Quench may waxaat benn affaire tamit si moom. parce que mbër du ñaan mais Papa moo gën a yaru ci làmba nga ni moo gën a yaru ci làmba ji. moo gën a yaru ci làmba ji na ñëw. Eh, eh, na ñëw ñu daan si ci fair mu ànd ak yaram ñu fal ko meer mbër mi gën a yaru si adduna bi mooy Papa mais nag na xam ne am na combat nag. waaw mais c'est normal gis nga boo mënee bëre boo mën mënee bëre affaire sax coono la. déggoo ma de te Siteu lii nëbbu si moom ba tey waneeku ko maanaam man Siteu mi may gis fii si écrit bi fii ak Siteu mi may gis tale maanaam Siteu lu bëree bëree bëri waneeku ko déggoo ma de Siteu qualité yu bëri yi ne si moom gisagu mu wane si benn. comme naan kon bu ñuy wax Papa Sow si bëre bi si gaawaay bi si lii bi man loo awuma si pression parce que xam naa espoir bi ñu yor xam naa ndaanaan li ñu ta te xam naa ne yàlla dina ko may ndam. parce que papa day loolu dëgg